1968 médaille de bronze 1966 mu nekk la meilleure joueuse la meilleure basketteuse africaine nous étions en Guinée. li ma def au niveau national euh, def naa ko pour le national mais pour ñoom aussi. exact voilà exact pour ñoom aussi. oui oui euh, wute na ak li ma def pour la région. oui. mais lii dafa yokk. Mhm. ci li ma def pour la région. Mhm. ñu boole loolu yépp nag. ne mhm. sargal ma leen di gërëm bu baax a baax mhm. nu ma leen fay parce que su ma toggee tey ci émission bii di wax mhm. loolu moo tax li ñu def moo tax yow nga ñëw gis ma ba invité ma fii pour ma wax wax nga dëgg man dama benn man qui fut basketteur Pape Racine ki fi fut mon directeur à la radio qui m'a parlé un jour de vous ni ma Jeanne Diompi certes mu ngi sa wetu kër elle mérite d'être connue du public pour ce qu'elle a fait. Première Sénégalaise sur podium, meilleure joueuse, meilleure basketteuse en 1966. En d'autres termes, le Sénégal n'est jamais rentré bredouille d'une Coupe d'Afrique. Parce que même bi équipe bi amul coupe yow am nga coupe. Euh, pour cela alors léegi Jeanne euh, en fin de carrière boo doon bind livre yan président de club yan entraîneur ñoo di ñi nga xam ni ñoo la marqué ci sa carrière. Euh, ñoom la wax sànq si. Euh, entraîneur yi ma marqué ci sama carrière Bona mooy premier. ci la bokk pourtant équipe nationale rek la la amee. oui ah mais c'était un bon entraîneur et un éducateur. pourtant dégg naa Bona dafa weexoon doo baali. Ah, mais doo am 31 décembre doo am 24 décembre. waaw mais loolu mooy éducateur. waaw. parce que loolu moo tax nag ma bëgg ko. rigueur bi rigueur bi. moo tax ma bëgg ko. wax nga dëgg parce que euh, su amul rigueur ci équipe du dox. wax nga dëgg. du dox euh, kii itam résultat yi du baax. donc moom ci loolu laa ko fonke loolu moo tax mu am ay résultats yu baax moom. wax nga dëgg parce que dafa amoon rigueur. oui oui waaw parce que yore ay fii euh, c'est très difficil fille boo xamante. kii dafa jóge fële kii jóge fii hmm. kii jóge ngeen ñëw eh, tase ku nekk ak sa éducation il faut quelqu'un de poigne pour mën gérer fii yooyu pour mën li mu bëgg ci hmm. fii yooyu te lool la bon a am bon ensuite euh, ki ma gën a marqué aussi ci entraîneur yi euh, Lune Diop Lune Diop waaw pourtant Lune daawul daawul liggéey ak jigéen ñi non mais euh, jege na jege woon na jigéen ñi mhm. waaw te man particulièrement fu ñu tase woon daf may euh, voilà damay sentir ne ku ma yëg la si si voilà si si loolu moo tax Alioune Diop yaa ngi ma naan yéex nga yëg ni gaañu nag waaw waaw parce que dama yàggul rek keroog balaa may dem Ziguinchor laa ko yëg mhm. waaw mhm. te maa ngi koy rendre hommage maa ngi koy jaale euh, kii ay mbokkam wax nga dëgg en particulier ñaddaa euh, ñaddaa rakkam voilà ñaddaa rakkam parce def nañu campagne ensemble ak ñoom sëriñ deer oui exact exact mais bala ñuy tàggoo bala maa jóge ci émission bi euh, déggan chimère feeñ nga ah, man maa ngi soog a xam lu tax nga mën sañse <laughs> déggan maa ngi xam lu tax nga soog ba sa professeur dafa mënoon sañse euh, yow da nga amoon déggan chimère di professeur am professeur d'éducation physique à à l'école Seydou Nourou Tall Seydou Nourou Tall léegi Seydou la mais avant c'était le lycée d'application de l'école normale supérieure nga yore déggan chimère waaw ak sëram mais yow kay déggan chimère ma xaw na def sport est-ce que du yaaka yaa yaa yaaka te pour mu def sport euh, euh, si pourtant da daan bokk ci sama équipe. dégg na kii yaa si. Séki bu IACI parce que nee na ma man basket na ci mhm. basket na defoon naa ci papaam la ko jëlee parce waaw papaam daf la entraîné mhm. bi ma déggan di wax basket na mais je me rends compte que yow la basket na ak man ci école am déggan mhm. ah, déggan ak sëram ak sëram nga yor leen à l'école ma yor leen à l'école waaw kon gars yi tey jii maa ngi leen di nuyu ñoom déggan ak sëram vraiment euh, gëj naa leen gis xamatuma sax ne ñu ngi fii ci Dakar Ndiaye bi pour man gis yow yaa ngi koy gis moom moo la gisul mais dañ la gis tey dina ma gis tey nag te bëgg naa nag ñu ñëw jox ma alarba alarba <laughs> dégg ngeen day joxe àllarba waaw waaw maak moom ñoo dëkk ah dëkk naak moom lu yàgg nit ñi naan ma yaa ngi dëkk ak champion moom laa indi tey ci émission bi première sénégalaise balaa ñuy tàggoo bi yéeg ci podium Sénégal en 1966